mbokk mbokki Sénégal mbokki amateurs yi mbokki lamb le 6 novembre ñu nga jëm ci arène nationale ci combat de clarification ci combat revanche ci combat bu décisif ci diggante Papa Sow ak Siteu ma ne ku osé def li ni mel ñu ne jàmbaar production ndax lamb dafa ne combat ba fi amoon daaw verdict bi la ñuy xaar ba tey te faaw mu war a leer ci diggante Siteu ak Papa Sow jàmbaar wrestling production ne maa ngi nii maay ki koy leeral maay kiy départager diggante ñaari mbër yi ma leen ko waxee war ngeen koo gëm ndax face à face ba keroog na ni tuq bënn saañ ba réer ma ne wallaay dëgg la kon mbokki amateur yi combat de clarification baa ngook ndax Papa Sow dafa ne juróom-ñeenti at a ngi nii may wër victoire mu tëma tëcc rax ca dolli ma jógee faa samp sama yëfi bopp muy jàmbaar wrestling academy rax ca dolli ma may xale sens kon le 6 novembre kenn mënumaa tere dégg félicitation ba tax na fu sama adversaire nekk danaa ko fa fekk lu combat bi laaj danaa ko def si te ko maa féete ndaw ma la xaar ngir dégg roi des arènes kon le 6 novembre la ñuy def ca làmb ja maa ko fay def ñu ne ah mbokki amateurs kon bés a ngoog jàmbaar ne dama cee toftal nag combat yoo xam ne boo ci jël mat na grand combat ca spécial ba diggante anaconda ak caatu ngéwél loolu toq su bënn la saañ ba réer goreel dana fa jàkkaarloog Ziza fils de Samsam dana jàkkaarloog Potilo Mbàkke fay jàkkaarloog Sàqal 2 caatu Piyol jàkkaarloog Boy Notaire ñang baalu ak Ceer Guy gi Moussa Dioum numéro 2 ak Max Mbergan série jàmbaar production moo ñu jox rendez le 6 novembre ci arène nationale ci combat soc combat de clarification ñu ànd ceeg seen partenaire officiel nice and sick by Pulo bu may ba partenaire bi nga xam ne ku mu àndal nga am ndam ku mu àndal nga def différence ndax ñoom ci différence rekk lañu leen xam